pour cent mooy yaa ngi dem foo xam ne duñ la ñeme yaa ngi dem foo xam ne bu ñu war a waxtaan boo toogee ñëpp dana noppi yaa ngi dem foo xam ne bu nuy dem duñu la yóbbaale yaa ngi dem foo xam ne duñu la boole ci seeni i programme yaa ngi dem foo xam ne seen i biir doo ko yëg yaa ngi dem foo xam ne bu ñu war a waxtaan waxtaanu biir danañ na la sëñ bi may ma waaye ba ma ñëwee Masamba duma ko wan ma dem ba duma ko wan ndax fa moom Masamba ñoruma fa ma dem ba ñoruma fa moom moo ma ñor ndax moom moo ma la ma jëmmam moo ma ñor lim ma wan mooy Omaro ma ne ko naam wax ko de dama bëgg ngeen déglu ma li waral ma ne la juddu naa di jullit waaye daanaka taxawaay naa féq laa taxawee woon keroog ba ma ànd ak moom laa gëm yàlla doyloo ko déglu leen baax li ba ma ànd ak moom laa gëm yàlla doyloo ko xam nga nu mbir yi demee dama egg ci moom boole wax ci mbedd bi ak sama xalaat indi di seet ndax nag ak gan mën nga ko tere lu ne ba mu des xool ak déglu. dëgg la léegi ndax bët amul kubéer nopp amul kubéer. lu leer nga wax. kenn mënu ko tere ko tere. xam nga lu mu def kii. lu mu def. dama ne bërëb ñëw benn daje ñaari daje mu boole ma ci staff daggal ma ab salaire dimanche bu jot may fayee ko yéen nga may dégg bépp production boo xam ne ñu ngi koy am diggante lënd ba dimanche dañuy dajale sama salaire muy sama cachet dimanche ci guddi balaa maa tëdd ci laal vogue bu dernière soirée ñu fay ma ko fa la njëkkee ak man. loolu mooy première semaine bi ma ne ah la ma yaakaaroon du lii de man dafa ko naan dañ may bàyyi ci télé bi rek may wax lu baax bu ma bu ma bu ma ñëwee ñu wan ba ne kat ñëw nga remercier ma ma ñibbi waaye boole ma ci may fayeku de xaaruma ko fi woon gars bàyyi nga may dégg ma boole ma ci yëf yi may fayeku ah xaaruma ko fi woon ah ma dem semaine jàpp fukki fan ma ñëw ci kër gi naan café ñu may moom oto woo xam ne baat ak tontu la Paco Modou Mbaye ñëw taxaw Fari taxaw Baye taxaw ñuy waxtaan Paco ne waali taay sama oto bi boo gisee ni ma ko defaraatee dafa gën a garaaw sama RS bi nangam ak sàngam di saf oto bi di ko jaay di ko jaay wax ci oto bi yu foor a foor a foor na ko bii moom bu isaatee ma rek nga nangu ko sama loxo yow yaa koy dawal wàll na ko an oto bi mu ne ko mu suuf ma gaari wàll na ko an caab bi mu teg loxo bi caab bi wàll dama ko tëll samay loxo dama may ma café mel ni kuy maye café may oto mel ni kuy maye café barke Sëriñ Bamba Mbàkke may la oto mel ni kuy maye café ma woo Alaaji Baara miitu jëmm ji nekk ko waa ah, sëñ Baara waa li day ngi may duma te laal mi ngi may dóor de te kii kii dana ma reyaa ah. ma ne ko waaye mi ngi koy jëflante ak as gor mi ngi koy jëflante ak koo xam ne ma ko du kase maamam boo demee siin bur sin ku mandoo fen jur ndayam ma ngi koy jëflante koo xam ne boo demee gendar maam Deela Fall ak Cheikh Ibra Fall mi mu doyloo ñoo bokk jenn bàyyi amadu roq yi seen bàyyi maam Deela jur mamba mamba jur ibba ibba jur aarona aarona jur séena bu jaañ séena bu jur jaañ Omar Gueye kese mi tax a dox yéen doomi buur laa doomi gor laa doomi garmi laa maam Cheikh Fall sama maam wàllu ndeyjoor bul sin ku mandoo fen sama maam wàllu càmm ma ne la alaaji baara nga ne ma naam ma ne la waale danaa ko wan ne timbax na ma ko te bee koy sabab sëriñ ku ko timbax ma ri mbax ma jël engagement yaa góor tàmbali foofu yëg naa fa ci sama xol li gars yi ab dégloo président joxe na ndigal ab dégloo mbay si Ndiaye maa ngi lay ziyaare jaa ngeen jëfati sëñ Fallou jërëjëf ñu ngi lay ziyaare ma ne ah man de commencé na maa nekk à l'aise xaaral nag fii moom jàpp naa ne bool nañ ma ci nag léegi ma tàmbalee ñëw respecté liggéey bi jël ko en di ñëw di liggéey di communiquer di wax di noppalu di ñibbi ma jàpp ne nag yi fi moom fi mel moom dëgg yàlla waaw fii laa mën a yam nag waaye xam nga lan la kii def te waxul waaw bàyyi ngeen ne lii ma lay wax lépp mag waali baatu toog doxut suñu diggante dama ne ndax yéen a ngi dégg li may wax ba fii ma toll waali nawul Omar maa newu ma ko waali bee jëf rek day jëf may gis ma ne ci li ma war a ne muy gis mais xam nga fan laa xamee ni kii moo doyloo yàlla te moo wuuteeg gaa yi gis-gis gars yi ne woon oh, waaye du ko mere eh, du ko du ko ñeme du ko boole ci dara du ko du ko kii du ko lii du ko laa wax ay wax xam nga lu waay def ma yegg sama kër du xoole ba fajar enseigné waat xoole ba guddi doogu tëb nelaw yeewu nelaw ba fajar xoole waat ba guddi génnuma sama kër ñaari fan ngir xool ndax man damaa nekk ci gént wala ci laa xamee ne kii moo doyloo yàlla kii moo ragalul mbindeef bu yàlla bind génneel ay laaf ci say mbagg ne malaaka laa naaw kii faalewu la yarul ba doonu taalibe nekk gone bu am ñaari at kii naw na la ndax kamuy ñeme kamuy ragal bu mbindeef yàlla la xam nga lu kii def tax ma xam ne kii bokkut ak gars yi te war na ci man ma am beneen position bu dul bii maa moom mais gars yi est xam ngeen yére xam ngeen yére yére yére yére yére ñàkk yére ñàkk laa ilaha illallah bàyyi ngeen ne dof yi ci mbedd yi ma jox leen secrétaire yéen presse bi dof yi ci mbedd yi ñi ci ëpp tuflit tuflit dox ci mbedd nii dox sa soxla ba yàgg tuflit tëf mu dem ak yére lañ leen yàqee billaahi wallaahi wa taalaahi maay wax ak borom baati nii maay wax ak kilifa diine yi maay wax ak sëriñ si dof yi laa wax ñi ci ëpp laa wax ñi ci mbedd mi tàggoog seen sago dox ci mbedd di wax say soxla di kaf di foojiree ba yàgg tufli fekk topp nañ la bàyyi ba nga yegg fa nga jëm ñu force sa tufli dem def ca lañ ca war a def ak sa yére boo ñàkk ba mu tooy xepp lan lañ yàqee nii bañ tàggoog seen sa ko def taat nañ ci mbedd mi waaw ci xelu sénégalais yi kii ñemewul Omaro man ci sama xel ñeme na ma à cinquante pour cent parce que xob dafa rafet yërëm na ma mais à cinquante pour cent dana ma maytu ma ñëw këram mu woo néeg xeet yëf yi nag yëf yaa ngi bëgg a sori nag néeg ah man kii noonu na maa bàyyi rek ma yem ci saal bi waaw ndax xam nga tamit góor suñu as góor te am na loo xam ne bu xewee ci sa diggante nit foo jaar ker say dox ci seen diggante ma kii mën na ma bàyyi ci saal bi néeg mu ne ma xamar kaay yéegal ma yéeg mu rëkkati ñetti mbubb ak benn daal ab faaru maam buy tegu ci kaw ak t-shirt buy nekk ci biir ak tubéy bu ñu koy booleel ñu dégradé ko mu joxe noir et ak ay dàll carax noir et yu ma àndal na ma dañuy dem Expresso sañsel lii keroog ba ñu dem di contra contrat Expresso ba moom laa sol bi ma futtee koo wàcc ci néegu ci néegu euh, Moustapha di solu parfum bi waa li def te mu xeeñ ñii ci yërëm mi ngi xeeñ ci yére bi tubéy bi man na waat ne na ñu ko simmee matul ñaari fan ndax kuy xool nag yori bët xam nga luñ sol ak luñ solul dàll yi sol na ko vogg xamee naa dàll yi sol na ko ci kilib xamee naa dàll yi sol na ko biir këram xamee naa dàll yi non ma sañ sa ñu dem espresso boo noppee yóbbu sa kër ba ma génne rek ba ma génne ñu dem espresso ci yoon ma def analise delluwaat sama kër toog xoole bu bët set di xalaat ca kii fi mu ne ak fa ma ne ak fa gaa yi ne bokkul te jot na nag ma dimbali senegal yi laaya leen biir xam nga lu ma jàngal foofu yokk sama doyloo yàlla ak sama wóolu yàlla ak sama gëm yàlla mooy daf maa xamal ne booy faalaw ma la mënoo maa lor waaye xamalaat ma ne booy ka toogoon nga dem laaya ma la ndax mënoo maa jariñ gaa yi déggoo leen ma de déedéet gaa yi déggoo leen ma est-ce que dégg ngeen ma mi ngi ko def ci lu mi ngi ko def ci loo xam ne bàyyiwut sa xel waaye jàngal na ma man mii na yow li ngay xalaat ci sa xel ak li xalaat ñoruma yaa ak sa fukki moroom yow Omaro yow ak sa fukki moroom yu wër di wax di noppalu munu leen maa jariñ Omaro yaa ak sa fukki moroom yu wax di noppalu munu leen maa lor man Waly te waxul ba léegi làmmiñu Waly dugul takk sama nopp waaye jëf ñaan waajur waaw léegi nag ci loolu man laa jaar ne man doyloo yàlla kii ko def ci man waaye léegi bi mu ko defee ci man lu ma yem ci wax ko dama koy jëf yóbbu na ma foo xam ne fii ma taxaw di wax ak yow dama daan dund di sóoraale doomu aadama naan naa ko mayta ndax mën naa daj sama kow gaañ ma dafa garaaw dafa lii dafa laa dafa mystique dafa ñeme gàllaaj day joxe sarax day lii day laa jékki-jékki daan bëgg doomu aadama di topp ci ginnaawam di daw ngir lañ jàpp ne man na maa jariñ man na maa jox ci oto yi wala mën na maa jox ci terrain baa ci millions yi loolu jeex na ci sama dund maa ngi jàkkaarloog presse sénégalaise di leen yëgal ni képp ku jàpp ne man nga maa jariñ ci sama àdduna boo ma bàyyi damay torox mm. loo ma mënoon na jox ci sama dund laaj ma ko ma fay la loo may waaj jox téye ko dee jàpp nga ne yaa yor sama njariñ waaye képp koo xam ne jàpp nga ne man nga maa lor Omar Gueye kese laa tudd sama yaay ndey seenu bu jaan la tudd sama papa tudd boo ko mënee def ko tey bala maa tëdd ci la baa dégg ngeen ma dix ans de laa def musuma wax sama sant gars yi dama bëgg ngeen déglu ma dama bëgg ngeen xam fan la ma waali jële ci yàlla ba waral ma tuddee li addiya dama man dix ans de carrière laa sant turandoo laay utiliser sama dama ko daan nëbb ngir bañ ku ma liggéey ku ma laaj noo sant ma nga la Omar ngir ngir bañ ku ma liggéey di utiliser sama sant turandoo di nëbb sama sant baay dama ne maa jàkkaarloo toute la presse sénégalaise ne leen Omar Gueye Kase laa tudd sama yaay ndey seen bu jàng tudd sama papa Ismaïla Kase la tudd bu dee doomu aadama mi ngi yeewoo ci àddina man ci man dara ku yàlla na ko def. waaw léegi man.